a dafa ni prenez deux femmes trois ou quatre ni koy gars yi firi du en lu du qui de gaa dañuy duufal sen poste de qui wu ko dafa ne pour éradiquer la wax de moy jëlif déséquilibre social ak préjugé tak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 عن إمام العارفين واليقين شمس الولاية الكبرى برزق المكتوب وقتم المعلوم بدر دياجي كوكب النوراني أبو الفيض أبو المولانا أبو العباس أحمد ابن محمد سالم التجاني شريف شريف الفاطمي الحسني ورضي الله عن صاحب شريعة الشيخ سيد الحج مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به أمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci xayru naasi muy saydu kawnayni wa thaqalayni wa fariqayni min urbin wa min ajami muy sayd al wal akhirin saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant yàlla ci lim ñu booleeg kilifa gu mat kilifa muy abul abbas ahmad tijani sharif di sant yàlla ci lim ñu boole ci silsila Cheikh sidil Hadj malik di sant yàlla ci lépp kon alhamdulilahi ala kulli xaal si wa shirka wa dalal di wax ñépp nag asalaamu aleykum wa rahmatullah seydina muhammad nee na asalaamu aleykum sunna la waaye fay niwoo farata la mu ne ku dégg asalaamualeykum te fayoo ba ki la niw dégg la mu ne danañ la bindal safaan te man sama asalaamualeykum ñëpp dégg nañ man nag su baaba Cerno dong lay dégg fa tabaarakallah waxtu wi xat na xat na waaye pédagogiquement damay dégg kat yi di wax ni dars du tuuti leçon du ndaw gaal lu mu xat-xat-xat nañ ma indil sama mbokk yi yëpp waaw kay lu lu avion fees fees fees fees niwul ma maître Ali Fall xaj na ca li am solo waaye wilaan yow tam lii lii moom kenn xamul lu mu doon sa affaire bii gisuma ñi nekk sama kanam kenn xaw ma dañ may ŋóobi xaw ma lu ñoo def ut ci pexe <laughs> waa bëgg naa jàkkarlook ñii ma am nag waa am naa fi ñaar yu jàkkaarloog man bleu blanc la couleur de la paix ak couleur rahma yeneen ci bi nee na mooy jàmm bleu mooy yërmande yàlla vert mooy prospérité Père Ali est-ce que xam nga ne kenn du xëy rek sol li la neex couleur boo xëy sol ko rek dan ci conditionné moo tax la couleur définit l'état d'esprit de l'individu may ñëw sama wóllëre bu baax bii di sëñ Mansour Seck moo fi njëkk ñëw tey kon li ñu bëgg waxtaanee di niwu sama sëriñ sëñ Babacar Sall góor gi Alioune Sall moo ko jur Alioune Sall maam Sofiyatu Si moo ko jur maam Sofiyatu Si sëñ Sidi Ahmed Si Malick moo ko jur kon sëtu Cheikh Seydil Hadji Malick la nit ñi nag daayira bi maam aas la miin tey nag maam aas am ci lu mu nekk mu ne sama sëriñ dina ma représenté yal na yàlla fay yiw ñi fi toog ñëpp war a jël kàddu tout le monde bay côté bee ku nekk am na loo bëgg wax sama mbokk mii war na jël kàddu waaye baaba su ma waxee wax na su waxee wax naa te moo ñu jiite tàkkusaan waaye li ñu bëgg waxtaanee di niwu samay goro waa njabootu Alaaji Suleymaan kat ànd kook oustaz Lo su ma ne Alaaji ak njabootu Alaaji Souleymane Kan bu ma tuddee sama papa Ousmane Kan yóbbaale na ñépp ndax mooy xalifa mais nag damay beral niwoo ci biir kër gi Pape Bachirou Kan ndax ba ñu door lii ci saal ba tey day daan ànd ak góor gi Alaaji Souleymane manqué gul conférence yàlla bu mu manqué di niw it samay goro muy sama mbokk soose muy waa kër ñoom soxna Mariama moom mooy sama aawo fala lépp tàmbalee yal yàlla suturaal ñépp ba faw li ñuy waxtaanee muy lu jafe per àll muy lu jafe ci biir pénc di Sénégal te ma am soxna comme ñépp mais damay jàngale wax ji sax mën na dem ba mel ni dafa am kooku cible fekk déedéet ñàngale yam la moo mel noonu lan la ñuy waxtaane dañ ne néegu sëy waaye malheureusement ma al asaf ci réew mi dañoo am cat mooy buñ ne néegu sëy rek ñu askanale ko jigéen alors que non parce que la première responsabilité dans la vie conjugale c'est l'homme la première responsabilité incombe à l'homme mooy góor gu nekk war na am mat bu mu mottalee soxna jigéen ju nekk war a am teggin bu mu nangoo ñu mottali ko c'est une relation de complémentarité mais aussi de, euh, de communication et de communion parce que euh, suñu papa bi lu mu tudd alhamdulilah ahmadou anta sab bi sa wëllëri yal na yàgg yàlla dindiwu nag sama mbokk mii di Cheikh Oumar tey def na man ni ma daan def Chérif Ibrahima Aïdara damaa dem programme mu ne maam Ousmane sànnil kaddu ne ko imaam Moussa Gueye waxtaan na ba pare mu ne ma sànnil kaddu ma ne asalaamualeykum li imaam wax rafet na matale na wasalaamualeykum wa rahmatullah mu ne ma jeex na ma ko sànni naa kaddu damay wax nii assistance yu mel nii ñaaree ñun ndongo daara yi ñoo koy yàq baaba cerno day wax ba pare ma ne li baaba wax aw dara lu ma ci te ko waaye nga waxaat une heure de temps ne ngeen ma sax maa ngi bëgg guddal be guddal be <laughs> ah, noonu lañuy def ne ngeen baal ma nag maa ngi bëgg guddal waaye guddal nga ba noppi kon war nañu mën a am di doyloo waxu suñu mbokku tànn bi waaye nag teraanga moo dul doy di la sant di tax ñu ji ñu jox père Ali jaabante bi yépp mooy c'est le parrain d'honneur te sama rek ko papa la donc sama papa la di suma xarit nag may xaritam mu jàpp ma ma jàpp ko ñun on n'a pas besoin de nous voir pour xam ci lan la ñu nekk avant-hier dama ne ko dama bëgg ñëw kër ga pour affaire conférence bi tontuwuma sax ndax bëggul sama di ko wax bëggul may ñëw këram pour conférence moom na koy yëg comme ñëpp moom doy na ko yal na yàlla fay li yiw léegi nag néegu sëy muy lu compliqué te war a yomb kon lu ko compliqué mooy que d'abord ñu accepter que nous avons une société malade entre guillemets lu indi feebar bi mooy aada bi te Maodo. dafa wax ni catu Sénégal mooy aada daf fi mës a daan diine mais diine du daan mukk aada te ku sukkandikuwul ci diine ku sukkandikuwul ci diine mënoo am ngërëmal yàlla te sëñ Amadou diine ji dañ koo rax dañ ko rax rax boobu nag moo dugg ci biir sëy yi te bu ñu bëggee pénc baax du problème mu président lii defar réew du président du ministre du sëriñ néegu sëy mooy defar réew mi parce que cellule bi tax lépp di am ci néeg bi lay tàmbalee mais Père Ali bari na fii quatre-vingt-dix-neuf pour cent des Sénégalais kenn mësu jàngal kenn fi nu ñuy sëy da ngay xëy rek sa doom ñëw yaay dama bëgg diw papa dama bëgg diw ah aca boog kuy baayam diw kuy yaayam diw ñu maye mais ça c'est catastrophique te yàlla wax yonent bi iqra bismi rabbika allazi xalaq yow sayyidil wujudi yaay jëmmi xam-xam kon beral daara jàngal nit ñi lépp lu ñu war a soxla ci seen àddina luy tax ma gërëm leen kon pour pourquoi duñ jàngale sëy nit sëy na ba dugg ci bàmmeel te xamul luy sëy Sénégal nag ni ñuy définir ay sëy mooy na waa ji di yooxu ndaw si nay muñ loolu mooy sëy si Sénégal sama bàyyi Cheikh Diop moo mës wax ci tool ba ne ma bés boo taxawee ba ne kër gi maa fi kilifa bés boobu nga war a yëg ne dootuloo kilifa ma ko ah mu ne ma échec nga boo demee bay yegg sa bopp ngay daanu de da ngay xaar ñu ne la yaay kilifa kër gi donc c'est un comportement léegi nag loo wax rek ñu ne la muñal lan mooy muñ isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullah laallakum tuflihun Dieu dafa ne soyez endurant persévérant di ngeen am ndam mais seigne Amadou man laaj la lan mooy muñ Père Ali avocat à la luy muñ da ngay gis ni ah muñ da gis ku ñëw ne la sama jëkkër def na ma li def na ma li ñu ne ko muñal mais c'est quoi muñal lu ñuy muñee ak luy muñ te loolu ñun ñëpp koy dégg nag léegi sax nga woo sa wujju ne ko yaay lii lii wala papa lii lii mu ne ah muñal. fekk déedéet ña lay rey ñi ngi lay muñ mooy lan ci ci sharia une situation x boo xamul mu dal ci sa kaw mu metti la premier acte ne tekk ne pas observez un silence retentissant boo noppee ba pare nga jàngat lii lan la lu ko indi ak lu may def ba régler ko ba jot li ma soxla lii muy muñ kon muñ muñ bañ ci la koy def en ah muñ bañ ci la koy def déedéet xol du muñ xel xol du muñ te bari na ko ne la cër mu ne la xol mais xol organe la di organe la bu ñuy alimenté te xol am na xeetu santiment boo xam ne day feebar loo xol te boo demee ci médecin bi mu defal la scanner wala électrocardiogramme daan la dara daru la te yaa ngi feebar parce que xol xëtër rein yooyu la de benn bu ci nekk am na sentiment bu koy jox feebar te hôpital du ko gis ba koy séddil wujudi di di jàngale xoolal ni mu yàggee tubaab bi ñu ngi ñu ngi ko découvrir en 2016 tuddee ko les maladies psychosomatiques te sentiment ga moo koy indi wala ressentiment xam nga jigéen dina la dagg saaga nga bëgg ko fase fekk dafa wax pour nga dimbali ko jigen dina soxor nga yaakaar dafa soxor fekk elle est en train de lancer un appel à l'aide luy tax nga xam lim mu bëgg wax tek kenn du Seydina Muhammad kenn du yonent bi waaye nag wilaan dafa am lu ñuy jaawale ci pénc mi mooy dara kenn mënu ko régler te teguwul ci xam-xam Cheikh Seydil Hadji Malick dafa ni xam-xam ki ko am ba xam ko mooy ku fekk fu lëndëm nga taal fa faar comme ça lii rek mu ne kon ku bëgg a gindeeku nañ ko installé kon ku bëgg a gindeeku il faut que nga am xam-xam loolu nag lañ dindi ci réew mi xam-xam léegi lépp dañ ko bëgg a teg ci lijjanti sëy bi dañ koy lijjanti te per ali ñaata sëy nga réglé ko te ma wax la benn sew sew Sénégal ak néew ñi ñuy réglé sëy te yaakaar na ñi ngi réglé sëy fekk ñoo koy tasi ji xam nga lu tax su ma ñëwee boole soxna si boole nga yedd ma yedd soxna si réglé woo sëy bi danga ñoo yedd et quand on sauve yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne sëy bi la régler pas nit ñi xawma ma ndax dégg ngeen fi may waxe ce ne sont pas les gens ce n'est pas la femme ou l'homme en tant que tel mais c'est l'union qu'on sauve pas les individus c'est différent moo tax bu jigéen ñëwee boole góor ñëw boole doo wax muñal da ngay déglu problème bi leen boole du ñoom li ñu wax mooy li ñu waxul mooy problème bi nga jël nag sëy bi teg ko moom en tant que tel mooy ruux wi nekk ci diggante ku góor ki ak ku jigéen gi loolu ngay sauver mais pas nit ñi ku ci nekk nag boo bëggee sauver loolu wilaan danga naan waa ji yow góor nga te matoo moom jigéen la te matul kon nañ ko teg ñu waxtaanee ko nga wan lii ñu bokk lan la ak lan lay jur sëriñ Babacar si dafa ne bi mu gisee ñetti inna sa maam bi mu gisee ñetti inna ci la noppalu damay bañ a jaxase moo tax ma xool ko inna allaha laa yuddiu ajral muhsinina jigéen ñi ngeen diglu mu baax de ak góor ñi inna allaha laa yahdi kaydal xaainina inna allaha maa ma dolli ci man man musab mi inna allaha yuhibbul muhsinin xam nga mooy lan du loi bi bu ci nekk constitution la ci Allah la yudiu ajral muhsinin yalla muni yalla muni mom yalla neena du sanku mukk jëfi ku baax dégg ngeen wax ji est ce kon yow mii sa yëg diw yow mii sa yëg diw bul sekk ak moom yiw pour wut lu ko neex looloy erreur ñëpp damay dab sama bànneexu borom kër déedéet da ngay dab ndigalu yàlla ci sa borom kër dangay ngay dab ndigalu yàlla ci sa borom kër donc da ngay jaamu yàlla ci sa borom kër ndax boo bëggee dab sa bànneexu borom kër waaw dina la digal loo xam ni mën na am sariya nanguwu ko ndax bu la sa borom kër ne del xeesal waroo xeesal daga nul de même bu dee mooy jënd tube ya jaxase mélangé teg ni diwal daganul waroo ko def parce que kii xeesal bu jàppee bu jàppee pot boobu du jàpp ñàpp mi du ci jàpp parce que pot bii lañ ko xeesal loo xam nga léeg-léeg mu jàngala ne la nit ki bu duggee ci bàmmeel sax yi lekk yàpp bi déedéet du loolu de pot bi ci boppam ay sax lañ ñu dundul mooy la l'épiderme ne léegi nag contagu chaleur bi ci suuf si moo koy togg mu détaché seetal yàlla il faut que nga dellu ci suuf pour que mu détaché wu soo ko dund te pourtant boo ko daggee mu nàcc kon inna allaha la yudiru ajral muhsinin kon yow mi sey di def ay teranga di muñ comme ni ma ko waxuma muñu sénégal di def yiw sa borom kër tooñ la nga noppi xam nga ci mam abdou aziz dabba la xame la déchiffrer ak comprendre lu tax ñu daan wax jigéen del ballu sa borom kër nekk moo tax ñu bari borom baabu mës nga dégg lool maam Abdou Aziz Dabakh nee na ku dëkkee di la tooñ wala ngay tooñ te saay boo xëyee di ko baalu yàgg yàgg di nga timbàmme la <laughs> seetal loolu maam xalifa doy na war de kooku xikma la kon yow mii sëy jàppal ne lii may def ci kër gi di ko daj ci kër gi laa yu diu ajral mursinin yàlla nee na la du neen maa ngi lay xaar mais ça va prendre du temps parce que il faut mu xool ndax dëgg la léeg-léeg gis ku sëy dix li ma daj ci sëy bi fukki at sa taaw mënagul dem yu bënt di xoolal per aani bari na jigéen jooy laaj lu ñuy teertoo borom kër xamu ko te am na ñu am 30 ans de mariage ça nous intéresse hein c'est intéressant xam nga benn yonent bi sallallahu alayhi dafa ne yow Aliou Fall boo ñëw sa kër bu duggee loxo neen yonent bi d'accord nee na ŋabbal lu soxna si soxla ak xale yi te yow bu ca def sa xel léegi nag boo sonee te nee na borom kër dafa war a am yëglu boppam bu ñu xamee ne papa ngi ñëw soxna si xam ne sama borom kër a ngi ñëw boo ñegsee moom mu gàttandu la jiital xale yi ça ça crée l'affection entre le papa et ses enfants su xale yi dàqoo yow nga soog a roofaloog sa borom kër teg ko li nga ko war a teg muy cër yuñ ko war a sës muy tuñ ak tuñ ñooy ànd ci borom kër ak soxnaam man nag damay jàngale mën na am nag du ko def mën naa am maa ngi koy def <laughs> dégg léegi loolu bu ko xale yi gisee dañuy taxaw dañ koy jàpp kon wilaan ñi ngi lay jàngal ne jàngale sa doom ne lii sa bàyyi la moo tax gis nga nag mu duggee xale yi jël liñu mom soxna ci jël limu mom ne xale yi bay leen seen bay mu noppal yaa ngi suuxat ci dom ji ne ko bay day sonn ngir yow kon dang koy bay mu noppal moy tax yow per an 25 ans 27 ans nga daw wuti ji metti wuti ji dara pour noppal sa papa lolou nga daan dégg tax te xamoo lu la ko jox waaye léegi lu xew ca canapé ba lay aj tànkam teg film nga ubbi nga fëgg mbaa nga sone xale yi ubbi léegi borom kër yépp am ku nekk am nga sa sa sa sa caabi bopp karaj karaj dugg salaamaaleykum aleykum salaam moom mu ne nii gisoo jus mbedd yépp a jar jus mbedd yépp a jar ndax jigéen ñi defatuñu jus ci biir kër

sa boroom kër ñëw ba dugg ci néeg bi ba sangu ba tëdd di xaar reer nga defar reer ne eh, diw daa woo sa papa mu ñëw reer yàllaa ngi noté sa maam maam Sofiyatu ñang man mi sunu maam boobu ku mu yéem la ci benn geste Cheikh Seydil Hadji Malick moo wax sous son contrôle mu ne na ngeen ma ñaanalal ñaar chaque jour su jullee gee wax ko nangeen ma ñaanalal ñaar rek noppi bés benn mag ne ko waaw yow ñaar ñi kana kana mu ne ko al alxaaji rawxaan ngom ak soxna sofiyatu ñan ci ku yore ñeenti soxna ñu ne ko waaw lu xew mu ne njaboot du dab rawaan ci nangu ak wóolu waaye sofiyatu yàlla ñu boole mais mësul yëkkati sama siritu jë yal na ko yàlla may njabootu barke yal na ko yàlla may njaboot gu ko koy wéttali gis nga ñaan yii mooy topp doom du li bu ñu la liggéeyu ndey mooy lay ndey def borom këram ba mu wécci ruqam ñaan léeg nit def la loo xam ni fi ngay jaamoo yàlla yow fi ngay jullee nga naan kii wax dëgg yàlla tooñ na ma yàlla dégg na ca mais lolu ko mawdo ñaanal moy cheikh al qawmi maam Abdou Aziz Dabakh cheikh mohammed Habib ken musu ci yëkkati ci sidou jëwam moy musu ko merlo mais père al ma wax la lu gëna yéme lool mam maam Sufiyatu mamam na maamam rafetul yiwul jigen di togg di mos ndax togg bi saf naam saful ñu ko kooku xamul dara ñu ni ko pourquoi mu ne ki dem dang-dangi wuti dépense jox la nga ñëkk ko mos dépense am <laughs> ki dafa bëgg bokk ci saalixaat yi moo tax waxuñu nag bu leen mos de mos leen mos leen de bu baax ah balaa moo ëpp mbaa bu coon te mawdu dafa ne Cheikh seydou Hadji mag neena boy cheikh sang bu xorom si uppe mbaa mu manqué du ko wax day lamb ci posam ne ko soxna ci baal ma de xamna lima la jox tay mo doyul motax su xorom si manke ay bu dee mam Ousmane comment affaire bi ki ki wala tay ye yonent sallallahu alaihi wasallam sallam dafa wax ne li gëna a gaaw li gën a gaaw a dog nit diggante mag yàlla mooy gëdd jigéen ci lu dul dëgg ak di ko dóor wallaahi moo ko wax mu ne képp kuy fekk jigéen di ko toroxal di ko yooxu di ko gëdd ci lu dul dëgg mu ne loo jaamu yàlla yéegatul mu ne nag boo ko dóoree ñu inscrire la ci su ñu war a torox balaa ñoo dee

moom loolee waxtaanam de léegi mu xool dañu waxtaan sérieusement quoi man nag bu waxee loolu rek ma yaakaar ne tey laa dina tukki mais ñaan sama bañ nag moo def lii moo def lii ma ne ko ah, yow mii tey boo moo te maam Adama ngay roy roy ko nag doo ko doo ko rëccu de ah wallaay roy maam Adama baax na de benn soxna laa moom te moo jur ñëpp <laughs> ah maam xalifa maam adama benn soxna laa ma te moo jur ñëpp benn dana gën jent de mais nag tey nijaay aada réew mi yàq na lu bare xam nga tey boo takkee beneen soxna ñu ne na aaw a mel na alors que yaa erreur yàlla dafa ni prenez deux femmes trois ou ni koy gaa yi firi du noonu en du de ni ñi dañuy poste dafa ne pour éradiquer la wax de mooy jëli fi déséquilibre social ak préjugé takk leen ñaar ci ci ku ñuy gaafal waaye tam bu la neexee rek topp sa bakkan takk mais man dama gëm ni ku topp bakkan ba takk takkaat da génn génnaat parce que iblisu wa dunya wa nafsi wa kulluhum képp kuy jël soxna jël ko ci xaqiqa lu tax ne la ñaar pour déséquilibre social parce bi l'islam di ñëw jigéen ju jëkkëram dee kenn du ko takk dafa gaaf ku ñu fase kenn du ko takk am na dëkk yoo xam ne da ngay tukki da ngeen tukki am na dëkku naar yoo xam ne ba tey bu ñu fasee jigéen duñ ko takkati ki la fase rek a lay takkaat man dem naa ci dëkk woowu bu mel noonu te xam nga dëkk ba lu ma ndaw si wax yéen sénégalais yi ñu baax ngeen da ngeen di yor jabar ma ne ko ah bu la suñu jigéen ñi dégg nga am liggéey te yow kii nga li ngay wax na yem ci fii de ndax bu yeggee Sénégal du ma ñëwati fii kon nañu xool ah sëñ Ahmada